Serigne Mor Penda Mbacke Serigne moor Penda Mbacke mi ngi feeñ jamono ci atum 1864 ci dëkk bu sell bii nag di Mbacke Bawal ci dëkk bii nag di Mbacke Bawal nag la feeñee jamono ci atum 1864 di doomu soxna Penda Ka ak daam Ahmadou na Seynabou Mbacke ñaari jëmm yii nag ñoo séq Serigne Mor Penda Mbacke ngir xamale leen nag ñoom ñoom ñooy kan soxna Penda Ka cosaanam nag mooy Yaañ Ka Serigne Ahmadou Dame Seynabou Mbacke sëtub maam Maaram Mbacke la Serigne Ahmadou Dame Seynabou Mbacke doomu Serigne sëriñ Ahmadou Diossi Mbacke la sëriñ Ahmadou Diossi Mbacke doomu sëriñ no Thierno Farimata Mbacke la sëriñ Thierno Farimata Mbacke doomi maam Maaram Mbacke la sëriñ Mor Penda Mbacke ñii la sëtoo nag ci maam Maaram Mbacke am na nag ñum bokkal nag soxna Penda Ka ak sëriñ Ahmadou na bu Mbacke ñu mën caa ràññee ku ñuy wax sëriñ Mbacke Penda ibnu soxna Penda Ka ibnu sëriñ Ahmadou Dame Seynabou Mbacke sëriñ maam Balla Mbacke Penda ibnu soxna Penda Ka ibnu sëriñ Ahmadou Dame Seynabou Mbacke soxna Assa soxna penda ka bintu sëriñ daam axmadu seynabu mbàkke ak moom sëriñ moor penda mbàkke ibnu soxna penda ka ibnu sëriñ daam axmadu seynabu mbàkke ñett nag la bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen ak moom muy ñeent ngir xamale leen nag njaboot googu nag mu bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen nag ñoom ñooy ñan sëriñ mbàkke penda moom soxna penda ka ak sëriñ axmadu daam na bu mbàkke ñaari doom nag la fi bàyyi muy ku ñuy wax soxna faati mbàkke ak soxna Mamadou Seynabu Mbàkke di maam Balla Mbàkke dafee teel a nag bàyyi ko bawu fi nag ak njaboota ñetteelu doomu soxna Penda ak sëriñ Daam Ahmadou Seynabu Mbàkke di soxna Assa Mbàkke Penda bi mu matee dem kër sëriñ Ibrahima Mbàkke Nguy nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Ibra Mbàkke nguuy nag am nañ ak njaboota ñu man cee ràññee soxna Xari Mbàkke sëriñ Aline Mbàkke soxna Sala Mbàkke soxna Awa Mbàkke ak soxna Xujja Mbàkke ñeenteelu doomu soxna Penda ak sëriñ Daam Ahmadou Seynabu Mbàkke di sëriñ Mor Penda Mbàkke moom nag lañ fas yéene waxtaane tey jii bi mu matee dal alxuraanul karim waajuram sëriñ ahmadou daam na seynabu mbàkke moo ko jàngal alxuraanul karim ci dëkk bii nag di mbàkke bawal bi mu tollee nag ci jàng alxuraanul karim nag laataa nag muy mokkal alxuraanul karim wala laataa nag muy pare am njàng la waajuram wi nag génn àdduna di sëriñ ahmadou daam na seynabu mbàkke waajuram wu jigéen wi nag di soxna pendaka ginnaaw bu mu liggéeyalee sëriñ ahmadou daam seynabu mbàkke nag ba noppi la soloon aw dàllam nag ne nag day cheikhul xadim mu ci dëkk bii nag di mbàkke kajoora ginnaaw bu soxna penda ka nag ñëwee mbàkke kajoora ba def fi ab diir nag la doomam ji nag di sëriñ moor penda mbàkke ñëwoon nag doon seetsi si nag waajuram wu jigéen wii bi mu ñëwee nag ci dëkk bi nag di mbàkke kajoor nag di seet si nag waajuram wu jigéen wii lafa fa giseeg nag seexul xadim wéy nag ànd ak seexul xadim ci loxoy seexul xadim nag la wéy nekk eggale nag am njàngam ba ni yoonu murit taxawee mu jébbalu nag ci ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul bokk nag ci murit yi njëkk a jaayanteeg seexul xadim ginnaaw bu nag jógee mbàkke kajoor nag ñëw ci dëkk bu sell bii nag di mbàkke bawal àndoon nag sëriñ moor penda mbàkke ginnaaw mbàkke bawal daaru salaama ginnaaw daaru salaam tuuba tuuba googu nag bi ko ku baax ki sëriñ tuuba xaadim rasool nag di gor sëriñ moor penda mbàkke itam nag bokkoon na itam nag ci góor yàlla nag yi doon gor nag dëkk bu sell bii nag di tuuba tuuba googu itam nag seexul xaadim nag doy na ko fi ba daana ànd ak moom nag léeg-léeg di doxantu nag ci dëkk bu sell bii nag di tuuba am na benn bis nag sëriñ moor penda ku baax ki sëriñ tuuba xaadim rasool nag ànd sëriñ tuuba nag mu summi ay dàllam sëriñ moor penda nag for dàlli ya ànd ak ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul def na nag ay pexe pexe ngir ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul nag solaat dàlli ya ginnaaw nag bu seexul xaadim xamee ne daal sëriñ moor penda mbàkke mii nag mu solaat dàlli yi nag la bëgg la koy xamal ne daal moor penda nag xaaral ma leeral la lu tax nag barab bii nag duma fi sol ay dàll moor penda barab bii nag képp ku fi masaa ñëw barab bii nag nga bëgg ba dellu barab bi xamuñu ko gisuñu ko man nag bi ma ñëwee barab bi wan na ma boppam xamal na ma itim nag boppam Mor Penda war ma jooju nag laa am nag ci barab bii nag ba du ma ko solal ay dàll lii nag sëriñ Mor Penda nag daana ko nettali di wax ne jaar na ceeg ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ci dëkk bu sell bii nag di Tuubaa mu wii nag nekk ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ba ni fi Seexul Xaadim bàyyi ko dem nag di Mbàkke Baari nag dem nag ci dëkk boobu nag di Mbàkke Baari Jolofa Mbàkke Baari Jolof googu nag la fi Seexul Xaadim bàyyi dem nag ci géej gi nag di dem ci géej gi nag sëriñ Mor Penda Mbàkke nag jot na ngërëmam Seexul Xaddim nag dafa defoon am ndénkaan nag ci sëriñ Mor Penda Mbàkke nag moo ko yeneen ni góor yàlla di leen xamal ne nag kër moom mën ngeen koo wut waaye soxna su ngeen di àndal nag ca biir kër ga leen nag ba ma jógee nag ci tukki bi nag ngeen doog koo am digal loolu nag sëriñ Mor Penda Mbàkke nag sàmm na ko itam nag te defoon na ko ba tax na nag bi Seexul Xaddim nag demee ci géej gi mi ngi nag ci dëkk bii nag di Mbàkke Bawal ginnaaw bu Seexul Xaddim joxee ndigal maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ngir mu gor nag dëkk bii nag di daaru Marnaan la sëriñ Mor Penda Mbàkke am kër nag ci dëkk bii nag di daaru Marnaan ci wetu nag maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ba ni Seexul Xadiim nag ñibbisee ñu doog koo booleeg soxna suñuy wax nag soxna Assu Mbàkke di doomu sëriñ Sayer Xujja Mbàkke soxna Assu Mbàkke am na nag ak njaboot ak sëriñ Mor Penda Mbàkke ñu man cee ràññe sëriñ Moodu Mbàkke Moor sëriñ Abdu Mbàkke Dëlbi sëriñ Muhammadu Lamin Baara Mbàkke ak sëriñ Daam Mbàkke ñeenti bant yi nag la soxna Assu Mbàkke moom sëriñ Sayer Mbàkke am ak sëriñ Mor Penda Mbàkke mu wéy nag ànd ak ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul rasul ba ni seexul xaddiim nag demee gànnaar bi seexul xaddiim nag di dem gànnaar ci kilifa yim àndaloon nag dem gànnaar sëriñ moor penda mbàkke itam nag ci bokk soo sukkandikoo ci mbindum seex musaa ka mi ngi wax ne nag bi seexul xaddiim nag di dem gànnaar ñaari mbàkke mbàkke dong nag la àndaloon nag ci yoon wu njëkk wa muy sëriñ aafiya mbàkke rakkam ak sëriñ moor penda mbàkke nag muy ab taalibeem ñu teewlu nag fi ko seex musaa ka waxe ci am mbindam déglu ma wax lañu ñu santoon dem gànnaar ànd ak sëriñ tubaa te ñëppi jàmbaar njëkkal sëriñ aafiya rakkam moo jiite sëriñ Momar Pendaay loxoom di woote mu wéy nag des gànnaar nag moo ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul gànnaar googu nag laataa fa seexul xaddim nag di bàyyi ko dem na fa nag ci dëkk bu ñuy wax Sarsaara laataa seexul xaddim nag di dem Sarsaara sëriñ Moor Penda Mbàkke nag ak yeneen ni góor yàlla nag la yabaloon nag ngir nag ñu dem leeral nag Sarsaara ak giléem nag ak saaku pepp nag la leen seexul xaddim joxoon ginnaaw bu ñu eggee nag ci suuf soosu nag di Sarsaara la am naarub gànnaar nag ñëw bu waroon nag ak giléem di leen xool ba mu yàgg nag mu dëpp sëriñ Moor Penda bee de wàllu lay wuti ci la sëriñ Mor Penda nag waxoon nag ñi mu àndaloon nañ lottal giléem gi mu yónnee nag ci sëriñ Touba Seexul Xaddiim di ko xibaar nag naar boobu fa ñëw nag Seexul Xaddiim nag di ko xamal ne nag wéyal leen seenub liggéey bi ma suñ borom yabalee nag ci dëkk boobu nag di Sarsaara la fi saytaane ñëw di ma xamal ne nag danaa la gàllankoor nag ba doo fa mën a dem kon loolu nag pexem saytaane la suñ borom nag mi ngi may xamal ne saytaane nag du la mënal dara ginnaaw bu naar bi wuteejee ay wàllu nag ba dikk lañ wër nag sëriñ Mor Penda Mbàkke nag ak mbooloo mi ñu àndaloon nag di gor xoolee nag ba sonn lañ dëpp nag dem moo tax nag soo delloo nag ci wayi Cheikh Moussa Ka nag di way Serigne Mor Penda Mbacke ci gànnaar ji ma ngay leeral nag Serigne Mor Penda Mbacke nag ni mu toppi woon ci ginnaaw ku baax ki Serigne Touba Xaadim Rasuul bëgg gum bëggoon Xaadim Rasuul liggéey nag bu mu daa liggéeyal Xaadim Rasuul ma ngi ciy junj sax histoire bii nga xam ne nii nag bisub keroog xew na nag ci digganteem ak naaru gànnaar yooyu ñu teewlu nag li ci Cheikh Moussa Ka way jagleel ko nag Serigne Mor Penda Mbacke ci bi mu nekkee gànnaar Serigne Mor Penda ay xarut Bamba fugg raas la woon Bamba defar xolam ba ab seexal woon bu fonk xeeti njàmbaar ku weddi laaj ña ko dogoon ci mu wéy nag ànd ak seexul xaddiim nag ci dëkk boobu nag di gànnaar ba ni seexul xaddiim nag jógee gànnaar ñëw nag ci beneen résidence surveillée nag di ca yéen jolofa mook seexul xaddiim nag wéy nañ nag des nag ci dëkk boobu nag di ca yéen jolofa ba ci atum 1909 ci 1909 nag la ko seexul xaddiim nag jox ndigal di ko xamal nag damaa bëggoon na nga dem nag ci dëkk bii nag di mbàmpana nag xaar ma fa ndax maa ngi fay ñëw nag fekk si ba la seexul xadim nag ñëw njaareem njaareem nag ak mbampana juróom-ñeenti kilomètre nag moo dox nag ci seen diggante mu wéy nag des nag mbampana mbampana googu nag seexul xadim nag wutloo woon na ko fa kër sëriñ Mor Penda nag wutaloon na kër nag mbampana nag seexul xadim kër ga nag juróom-ñaari kees nag la ko defoon ku ñuy wax sëriñ Mor Yaasin nag ak ku ñuy wax sëriñ Ibra Yaasin ñaari doomu aadama yi nag la sëriñ Mor Penda dénkoon na kër seexul xadim googu nag nekkoon nag ci mbampana bi seexul xadim nag di dem njaareem nag ba tolloog mbampana wala yéreem bari na itim nag ci ay bagaasam yoo xam ne mbampa na googu nag la ko yónnee woon ngir ñu denc ko nag ca kër ga waaye bari na ci bagaas yoo xam ne ni itim nag seexul xadim nag moo ko laajaat itim nag ci njaareem waaye seexul xadim nag diirum nag li mu nekk njaareem ñëwul nag mbampana ba tax na bagaas yooyu mu bàyyilu woon mbampana am na sax yu fa des yoo xam ne nii njabootu sëriñ moor penda nag ñoo koy barkeeloo muy ab lal boo xam ne nii nag mi ngi ci njaboot gi te itim nag ci bagaas yi seexul xadim yi nag ca la bokkoon ak yeneen ak yeneen i nag yu njabootu sëriñ moor yor ci nag lu seexul xaddiim nag daa jëfandikoo mu wéy nag des nag ci dëkk boobu nag di mbampana nag ci ndigalul ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasul seexul xaddiim itam nag joxaatoon na ko baneen soxna nag ngir mu dëkkoo ko muy doomu mammoor jaara mbàkke mi magi ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasul mook soxna xari mbakke moom mammoor jaara am nañ nag ak njaboota ñu man ca ràññe soxna maam bu busa moora ak sëriñ muudu abdoulaye mbakke moora ñaari bant yi nag la sëriñ moor penda mbàkke am ci soxna xari mbàkke moom mammoor jaara soxna xari mbàkke itam nag ci dëkk boobu nag nag di mbampana nag la génne àdduna ci dëkk boobu itam nag di mbampana la seexul xadim nag joxe ndigal itam nag ñu denc ko fa mbampana googu bari na nag ci njabootu yoonu murit nag ñu fa nekk ñu mën caa ràññee nag maami sëriñ tubaa seexul xadim di soxna anta kan mi meññi maam mor anta sali ci dëkk boobu nag di mbampana soxna ummi mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xadim soxna xari mbàkke bintu maam mor jaara soxna xadi mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xadim soxna assu mbàkke bintu cheikh mamadul basir mbàkke lu takku nag ci njabootuk Mbàkke bintu sëriñ Tuuba Seexul Xadiima ñi ngi tim nag ci dëkk boobu nag di Mbampana sëriñ Mbàkke Buso doomam ma nga fa Cheikh Isaa Jenn doomam ma nga fa Cheikh Masamba Mbàkke doomam ma nga fa soxna Faati Madumaan Jóob di waajuru Cheikh Mamadul Basiir Mbàkke njaboot gum séq ak sëriñ na Silla am na ñu fa nekk sëriñ Balla Mbàkke Joor lu takkoo takku nag ci ay doomam itim nag ña nga fa soxna Anta Sali Kan di waajuru Mamor Anta Sali Mbàkke di maam ci sëriñ Tuuba Seexul Xadiim itim mi dëkk boobu nag di Mbampana nag ñi ngi foofu nag ci dëkk boobu ñu denc ci ndigalul nag ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ngir nag ñu wéttali nag maamam ja di soxna Anta Sali Kan muy waajuru sëriñ Moor Anta Sali Mbàkke mu wéy nag des nag ci dëkk boobu nag di mbàmpana nag ci ndigalul ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ba nim génnee àdduna nag ci atum 1928 mu nekk nag ci dëkk boobu nag di yar di jàng ak di jàngale di dundal nag ndonal ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nekkoon itam nag ku sës rëkk nag ci ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ba tax na njaareem googu itam nag Seexul Xaadim nag daana ko woolu lu baree baree baree bari su masaa ñëw njaareem nag kër sëriñ aafiya mbàkke moom maamoor anta sali mbàkke nag foofu itam nag la daa dal amoon na fa sax nag am néeg saa bu seexul xaddim nag noppee ci moom mu delluwaat nag ci dëkk boobu nag di mbampana mbampana googu nag àndoon na fa ak ay góor yàlla nag di liggéeya ngir jëmmi nag ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul ci góor yàlla yim àndaloon mbampana nag di liggéeya ñi mënoon caa ràññee nag ku ñuy wax sëriñ mbàkke saalum sëriñ maam balla mbàkke sëriñ abdoulaye juufa ñang sëriñ Moustapha Thiam sëriñ Moustapha Thiam mi sax nettali na njabootuk sëriñ Mor Penda Mbàkke di wax ne addiye yi sëriñ Mor Penda Mbàkke mujje yit ku baax ki sëriñ Tubaa Xaadim Rasuul di addiye pepp moom mii nag moo ko yóbbu woon di ndigalul sëriñ Mor Penda Mbàkke ginnaaw mbampana sëriñ Mor Penda Mbàkke ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xaadim joxaatoon na ko ndigal nag mu ñëw sanc nag ci dëkk bu sell bi nag di Touba keroog nag bi ko Seexul Xaadim nag di jox ndigal ngir nag mu ñëw sanc nag ci dëkk bu sell bi nag di Touba mi ngi koy xamal ne soo demee ajjuma jotee nag nga mën a julli si nag ci dëkk bi moo taxoon nag sëriñ Mor Penda Mbàkke ñëw nag ba tolloog nag fii gaar bu mag nekk mu sanc fa amoon na kër sax fii tolloog gaar bu mag lenn itim nag ci ak njabootam foofu nag la ñu dëkkee amoon na kër itim nag ci daaru marnaan ci bi mu nekkee nag ci maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ci bi seexul xaddim nag nekkee ci géej gi ak kër gi mu am nag mbampana ñetti kër yii nag la sëriñ Mor Penda Mbàkke amoon ci diirum nag li muy dund suuf sii nag mu amoon nag ci ñetti dëkk yi ba nëgëni nag mi njabootam suuf tey lépp nag lu fa masaa ñore seexul xaddim nag la koy jébbal nag ci njaareem ginnaaw góor yàlla yooyu mu àndaloon di liggéey nag di yit ku baax ki sëriñ Tuubaa xaadim rasuul moom sëriñ Moor Penda Mbàkke nag yoroon na yeneen yi soxna yu bokkut ak soxna Assu Mbàkke ak soxna Xari Mbàkke muy soxna suñuy wax soxna Faati Saaw mook soxna Faati Saaw nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññe soxna Xari Mbàkke yoraatoon na beneen soxna nag moom sëriñ Moor pen Mbàkke muy ku ñuy wax soxna Absatu Ka mook soxna Absatu Ka nag am nañ ak njaboota soxna Seynabu Mbàkke Absatu ak seen mag ja nag soxna Aminta Mbàkke yoraatoon na nag yeneen ñaari soxna muy ku ñuy wax soxna Xari Jaxate Sill di doomu sëriñ ma Sàmba Asta ak doomu Sàmba Lawbe Njaaya jum donna woon nag ci sëriñ Mohamadou Faajama Ñang ñu gënoon koo xam ci soxna mbenn Mbenda Saakuli Njaay juróom benn soxna nag la sëriñ Mor Penda Mbàkke dëkkoo woon njaboot gim ci am ngir xamale leen nag ñoom nag ñoom ñooy ñan soxna sim njëkk a dëkkool nag di soxna Assu Mbàkke njaboot gim ci am mooy sëriñ Moodu Moor Mbàkke sëriñ Abdu Lamine Baara Mbàkke ak sëriñ Daam Mbàkke soxna Xari Mbàkke moom maam moor Jaara njaboot gim ci am mooy soxna maam Buso Moor Mbàkke ak sëriñ Moodu Abdoulaye Mbàkke soxna Asuka njaboot gim ci am mooy soxna Faati satu Mbàkke soxna Aminta Mbàkke ak soxna Seynabu satu Mbàkke soxna Faati Saaw njaboot gim ci am mooy soxna xar Xari Mbàkke soxna yi Jaxate Sill amu ci nag ak njaboota soxna Mbenda Saakuli Njaay di doomu Sàmba Lawbe Njaay amu ci ak njaboota njaboot yii nag ñoom ñooy ñan sëriñ Modou moor Mbacke moo nekk nag ab xalifaam bu njëkk sëriñ Abdou bi Mbacke moo nekkoon ñaareelu xalifaam sëriñ Mouhamadou Lamine Baara Mbacke moo nekkoon itam nag ñetteelu xalifaam sëriñ Daam Mbacke nag jutta toog nag xalifaam doomam ji nag di soxna Boussa Mbacke ñu gën koo xam ne ci soxna Boussa Moora bi mu matee dem kër nag sëriñ Modou sekk Taqe nag lañ ko joxoon ba tax na mook sëriñ Modou sekk Taqe nag am nañu ak njaboota mën cee ràññee sëriñ Saliou Seck sëriñ Fallou Seck ak soxna Ndey Seck Mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ Mbàkke Aminta Mbàkke nag lañ ko joxoon moom sëriñ Ibra Fari Mbàkke soxna Seynabu Mbàkke moom sëriñ Mor Penda Mbàkke am na ak njaboot nag ak sëriñ Mbàkke Aminta Mbàkke ñu man cee ràññe ku ñuy wax sëriñ Seex Mor Mbàkke imam sëriñ Daam Mbàkke sëriñ Fàllu Mbàkke soxna May Mbàkke soxna Busa Mbàkke soxna Ami Mbàkke soxna Maam Fari Mbàkke doomam jii di soxna Roqaya Mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ Mbay Si moom sëriñ Mor Si nag lañ ko jébbaloon soxna Roqaya Mbàkke nag mook sëriñ Mbay ca ràññe sëriñ cheikh bas si maam saynabu si maam xari si maam awa si ak soxna ndey si doomam ji nag di soxna aminta mbàkke nag bi matee dem kër sëriñ mbàkke saalum nag lañ ko jébbaloon ba tax na mook sëriñ mbàkke saalum nag am nañu ak njaboota ñu mën cee ràññe cheikh touba mbàkke soxna xadi mbàkke ak ay seex yoo xam ne nii nag jotu ñoo am tur doomam ji di soxna faati mbàkke jarbaatam bu ñuy wax sëriñ alin mbàkke moom sëriñ ibra nguy nag lañ ko jébbaloon soxna faati mbàkke mook Moor Penda Mbàkke nag wéy des nag ci dëkk boobu nag di Mbampana ànd ak ku baax ki Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ba ci atum 1927 ku baax ki Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul bàyyi koo fi mu nekk nag ku ci ku baax ki bokk na nag ci góor yàlla yi njëkk a jaayante ku baax ki Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ci bi yoonu murid nag di taxaw ci dëkk boobu nag di Mbàkke Kajoor bi Seexul Xaadim bàyyi koo Mbàkke Kajoor nag ñëw Mbàkke Bawal àndoon naag ak Seexul Xaadim ci dëkk bii nag di Mbàkke Bawal bi Seexul Xaadim bàyyi koo Mbàkke Bawal dem Daaru Salaam itam nag àndoon Seexul Xaddim bàyyi ko Daaru Salaam dem Touba itam nag bokkoon na ci góor yàlla nag yu gor dëkk bu sell boobu nag di Touba Seexul Xaddim itam nag moo ko joxoon doomu Maam Mor Jaara bu ñuy wax Soxna Xari Mbàkke àndoon nag Seexul Xaddim nag dem Gànnaar àndoon nag Seexul Xaddim itam nag dem Ceyeen Jolofa Seexul Xaddim itam nag moo ko yabal mu dem Mbampana daay na it Seexul Xaddim nag addiye ci dëkk boobu nag di njaareem ba addiye yim ko mujjee it bu ñuy wax Sëriñ Moustapha Caama xamal na njabootuk Sëriñ moo ko it nag ku baax ki Sëriñ Touba Xaadim Rasuul ba Mor Penda Mbàkke Seexul Xaddim nag daana waxtaan ak moom lu bare bare bari loolu nag tax na mag ñu bare bari nag daanañ sukkandiku itam nag ci waxi Sëriñ Mor Penda Mbàkke soo delloo ci mbindum Seex Musaa Ka mi ngi wax ne bisub keroog bi Seexul Xaddim nag di nettali guddi gi mu njëkk a fanaan nag ci dëkk boobu nag di Ndakaaru te soxna Jaara fekkoon ko fa ak ngën gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam keroog ba mu koy nettali nag Sëriñ Mor Penda Mbàkke nag la ko nettali soo delloo nag ci mbindum Sëriñ Musaa Ka ma ngi ko fay wax nag ngir mu gën leera na Rasulullaah mu déey ko loolu desu Njaay keroog gis na fa sëñ maam jaara amu ne ko ñaax di ko dolli dara ku weddi laajal sëriñ Mor Penda moo fekkee waxtaan ak rek moom bam sëriñ Mor Penda Mbàkke nag ko amoon ak jaxasoo la nag ci kilifa yu takkoo takku nag ci yoon wi ñu mën cee ràññee sëriñ Ndaam Abdourahmaan Lo sëriñ Ahmadu Ndumbe Mbàkke sëriñ Afiye Mbàkke maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ci yoon wi mu wéy nag des nag ci dëkk boobu bële nag di Touba da nga bokk nag ci ñëma fay njëkk a fekk moo tax nag bi seexul xaddim nag génnee àdduna nag ci atum 1927 ginnaaw bu ci tegee at nag ak ñaari weer yu teg nag juróomi fan la fekki nag sëriñ Touba seexul xaddim ci dëkkam bu sell boobu nag di Touba mi ngi génn àdduna nag ci feebar bu ko tëral ci dëkk boobu ko seexul xaddim dëeloo nag di mbampana ci bisub talaata fukki fani rakk ji gàmm ci atum 1347 ci gàddaay gi talaata fukki fani rakk ji gàmm ci atum 1347 ci gàddaay gi dëppoo muy mardi 25 septembre septembre ci atum 1928 mardi 25 septembre 1928 ñu jële ko nag ci dëkk boobu nag di Mbampana yanoo ko fa nag indi ko nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba jébbal ko fi nag boroomam Serigne Mbacke Bousso bokkoon nag ci jàmbaar yi toppoon ci ginnaaw ko baax ki Serigne Touba Xaadim Rasool moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam moom Serigne Mor Penda nag ay xalifaam ñii la tëddee li ko dale ci atum ba ci atum 1969 taawam ba Serigne Mor Mbacke nag mooy ki ko njëkk a Penda Mbàkke ci atum 1969 la ba ci atum 1972 di sëriñ Abdu Mbàkke dël bi ñetteelu xalifa sëriñ Mor Penda Mbàkke ci atum 1972 la ba ci atum 2006 di sëriñ Baara Mbàkke moom sëriñ Mor Penda Mbàkke liñ tudd nag doomu sëriñ Mor Penda Mbàkke yu góor nag jeex tàkk nag ci kaw suufa sët nag tàmbalee wuutu seen maam ja sët bi njëkk a wuutu maamam mooy sëriñ Basiiru Mbàkke moom sëriñ Moodu Moor Mbàkke mi njëkk a wuutu nag sëriñ Mor Penda Mbàkke moo fi toog nag ci atum ba nëgëni ñu koy ñaanal nag suñ suñ borom guddal aw fanam nag te wéral ay cëram te yàggal ko nag ci toogaayu maamam boobu ak mbooleem nag ñu mu séqal sëriñ Mor Penda Mbàkke sëriñ Mor Penda Mbàkke nag amul nag bis nag buñ koy fàttaliku nag ci ñu tudde ak màggal waaye njabootam gi nag jàpp nañ nag bis bi nga xam ne nii nag sëriñ Mor Penda Mbàkke nag daana ko def ci ndigalul ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul saa bu dikkaatee nag ñu koy wéyal nag di ko dundal di ci barkeelu nag ni ko sëriñ moor Penda Mbàkke nag daa ko defee nag ci ndigalul ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul muy gàmmu gi ak màggal gi di ci barkeelu waale nag ci ndigal nag lu mu jële woon nag seexul xaddiima ñuy ñaan ca jàmbaari seexul xaddiim ja sëtub maam maaram ba sëriñ moor penda mbàkke yàlla nañu ko suñ borom fayal nag te yokk ay leeram te taas ñu itam nag ci barkeem li di jafe-jafe réew mi itam nag yàlla na ko suñ borom saafara ci dara jëy moor penda amiin dara moor penda amiin dara moor penda